habillé en blanc sol torpédro bi voilà ñu ngi noonu di avancé ñu leen di fàttali qu'il y a blessé au niveau des gardes du corps seet na donc ñu xajal yoon bi voilà ñu may ko mu jàll ñu may ko mu jàll donc il y a un blessé ñu fàttali ko léegi léegi kon gars yi ñu continuer ñu avancé réaction voilà donc. moom dem tribunal accompagner ko mu wuy ji bu ñu demee juge bi wax ko lan moo xew mais mais mais non jar na ko parce que Barthélemy bi concerné bi moom lañ ko war a notifier ay avocat notifier ko ki yëgul kay di dem ba yegg parce tey qu'est-ce que bu demul après duñ ko dab ne ko yaa ñëwul donc fa mu dem ba yegg ñu notifié ne ko c'est renvoyé mu soog a ñibbiwaat loolu kay c'est aussi simple que ça mais diggante bi nag kenn duñu wutal yoon bu ñuy jaar ak yoon bu dul jaar dañuy gunge Barthélemy dem tribunal ay lacrymogène mbaa gaañu gaañu amul non am na blessé déjà suñu quel niveau am na blessé gis ngeen auto président ngi ni toj nañ waaw yii moom yëngu nañu dégg ngeen ne jàmm ngeen woote ndax ci loolu ngeen di sax mais ci lañ dëkk parce que bu doon jàmm xam kon ak li ñu def nii tey kon fii euh, dret dina fi tuur parce que nañ jàll par force mais bi ñu waxtaanee ak colonel bi mu wax ñu non lim ñu wax moom dafa jot ay instruction kenn du jaar fee point barre léegi nag dëkk bi dañuy wut instruction fu nit non ñun koy topp lañu rek nañ leen wax fi ñu ngi doon ànd ak oto bi fas yéene ko topp par rapport ak suite événement bi donte tere nañ leen jaar fa mais nee nañ dinañ ut yoon ñu fàttali ne oto Ousmane Sonko euh, yàq nañ ko euh, am na benn blessé ci maanaam force de sécurité yi nga xamante ni ñoom ñoo gunge euh, Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko nga xamante ni tey ñëw na dooleel frère muy Barthélémy Dias pour ce procès nous rappelons que le procès a été renvoyé jusqu'au il faut que le procès soit maanaam il faut que ñoom notification imam yow fekkee nga nga xamante ni mooy. Euh, waaw commandant Mbengue way fekke nañ ko. Uh-huh. lan lañ ko wax euh, dañuy éviter ñoom pour ñu jaar biir université buntu université. parce que mën na ta xale yi génn. te mën na jur euh, trouble à l'ordre public. bon mu ne ko léegi mën ngeen jaar benn côté seet nu ngeen di def ba génn dem. Uh-huh. ah ñu ngi topp li mu wax ba xam danañu kojaat wala déet. mais li ñu ci xaw a doy waar mooy dafa am benn un des garde corps de Sonko boo xamante ni dañ ko touché ci bakkan quoi moom lañ doon seet nii ban hôpital la dem bon seen lacrymogène yi wala nga xamante ni lacrymogène bi la wala nga xam plomb plomb yi ñuy tiré mhm. moo ko laal ah, parce que am na ay plomb yu ñuy tiire yu sew non plomb yi ñuy tiré yu sew après deret ji tuuru deret ju bëri génn na ci moom yóbbu yóbbu ngeen woote violence non non non non man lii ma sol ku ko xool xam ni du affaire de violence Barthélémy li mu sol du affaire de violence. Mhm. mais dafa am loo xamante ni. bu mhm. buñ ci nekkee dix ans. ñu koy toppatoo mhm. dix ans ñu war ko lijjanti toog bañ ni Barth candidat la ñu convoqué ko toppatoo wuñu ndax convocation bi moo jiitu euh, li ñu ko def candidat wala mais suñu problème ñun pourquoi ñu ne barte candidat ñu xëy convoqué ko beneen bi ci des li koy prouver mooy tey renvoyé nañ sans présence su Barthélémy Dias loolu lu muy nurool foofu la mbir mi mbir bi foofu la léegi nag ñun am nañ droit dem ah. tribunal laajte renvoi bi ni mu demee parce que nee nañ décembre ñii na premier te période boobu daf ñuy fekk ci campagne électorale du ñu mos a nangu ñu yàq suñu campagne électorale. ndax jàppoon ni mën na gàllankoor surtout maanam tey jii ni li ngeen tàmbali te nas ko ngir fas yéene euh, maanaam jël maanaam ville de Dakar. ville de Dakar moom yàlla dong nga fi des. ci kàttanu yàlla incha allahu daanaka egg nañ fa ba pare te li nekk ci kanam raw li bët mais li ñu bëgg a wax nit ñi mooy du ñu nangu ñu yàq campagne u Barthélemy Diaz renvoyé nañ ko yóbbu nañ ko décembre wala le premier janvier tax ñu toog suñu kër lool duñ ko def soxlawuñu Barth ne woon na bu renvoi amee dootul wuyoti nax dafay dëggal wu kàddoom yooyu noonu bés ni ki tey bu weesoo kon justice bu mu ko wax ci waxi procès li ma mujj a wax ak moom daal devant président Malick Gakou mooy ni mooy lan renvoyé nañ ko mu ne delluwaat tribunal du le premier du le deux du le cinq damay def sama campagne. na lépp leer tey incha allah lépp lañ bëgg mu leer. déclaration bi topp leen ko bu leen tàyyi bu leen teggi seen bët yi ci ñii caméra yi tim leen. Bour News ak ak Sénégal. Bart dafa war a def benn déclaration. moom ak président Ousmane Sonko moom ak Malick Gakou ñoo bokk benn oto. muy ci oto Bart. moo gisee teewaay président Ousmane Sonko ak Malick Gakou. mais c'est normal parce que Bart liggéeyal na ñëpp. Bart xeexal na ñëpp. Bart xeexal na asamaan si xeexal suuf si. loolu doy na sëkk tey bi ñu bi ñu bi ñu naroon na teg lu dul yoon président Ousmane Sonko gis ngeen ni tey Bart lam ca def mu nu mënuñu ko. nekk dans tous les combats. merci looloo tax nag dañ ko delloo njukkal njukkal googu jaaraama jërëjëfe président Ousmane Sonko jërëjëf président Malick Gakou jërëjëf président Khalifa Ababacar Sall parce que ci huit heures ma nga ca biir Sall ba nga xamante ni. Ah, otoom lañ toll noonu moom président Ousmane Sonko ñu ngi toll au niveau. jërëjëf président. Euh, état d'esprit bi on a renvoyé euh, votre état d'esprit. voilà Barthélemy moo nekk noonu président Malick Gakou. voilà nee na ma ñëw nee na ma ñëw Momo Momo Momo. voilà président Malick Gakou on a renvoyé le procès. on va on on va au tribunal. on est convoqué au tribunal on va au tribunal mais on est renvoyé par qui renvoyé par qui nous naa kàddu yooyu leer na mu di président Malick Gakou nee na ils vont aller au tribunal euh, le procès est renvoyé kon ñoom amuñu benn considération ci renvoi procès bi <laughs> c'est non. Euh, voilà defe naa. Euh, chance la ñu am exclusivité boobu noonu Malick Gakou euh, wax ñu li mu gisee mbir mi nee na ak lu mën a xew dinañ dem tribunal donc il vont aller au tribunal donc dinañ dem tribunal loolu leer na. voilà Barthélémy Diaz il est habillé en blanc euh, ànd ak euh, Malick ñoom ñoo toog ci ginnaaw Ousmane Sonko moom moo toog ci kanam Malick Gakou defe naa kàddu yi mu leeral léegi am na solo ndax nee nañ quoi qu'il soit ñoom il vont aller au tribunal donc notification bi ñoom jotuñu ko. Euh, ñoom amuñu lu ñu ciy wax lu dul dañoo fas yéene dem tribunal kon nu continuer Moussa maa ngi lay ziar je voilà. ñëw ñëw ñëw waaw demal demal demal demal yoon wi xat na métti na compliqué na mais malgré tout gars yi dafa mel ni ils sont déterminés à aller au tribunal parce que il faut mu leer kon ñu ànd topp convoi bi euh, ma leen di fàttali Malick Gakou euh, la mu leeral Seydina moom laa àndal ci caméra bi. Euh, nee na ñoom quoi qu'il en soit ils vont aller au tribunal parce que dafa war a leer. voilà nañ ñëw allez allez allez voilà ñu ngi nii di continuer ah on continue on continue le chemin yoon wi xat na métti na euh, waaye dafa mel ni direction tribunal de Dakar Barth nee na il va tribunal loolu la Malick Gakou leeral dinañ dem tribunal donc oto bi taxawaat na oto bi taxawaat na euh, nu souffle tuuti ñu ngi toll ci oto Barthélémy mi ànd ak Malick Gakou ñoom ñoo toog ci ginnaaw Ousmane Sonko toog ca kanam. voilà réaction am na Malick Gakou dégg ngeen kàddu yi mu wax quoi qu'il en soit ils vont aller au tribunal nee naa ko procès bi renvoyé nañ ko ndax jarati na ñu dem tribunal nee na ñoom ak lu mën a xew daal dinañ dem euh, tribunal kon mbokk yi euh, nu bàyyi leen ngeen vivre à temps réel sur Sénégo quand c'est important sur Sénégo vivez à temps réel li nga xamante ni moom moo fi am muy Barthélémy déterminé à aller au tribunal pour que maanaam ñu édifier ko par rapport au procès voilà. Voilà, nous continuons hein, nos directs. Quand c'est important, voilà. Nous nous sommes au niveau de la piscine olympique. buur pusal Sama Kanam, Malan. a <laughs> ah, gars, direct vidéo d'or du way, mais Bour Mouno Poussal Sama Kanam. Intervention polyvalente, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons voilà defe naa est-ce que nekkul dañuy yóbbu Bart damay ragal nii Bart dañ ko nar yóbbu euh, parce que gis nañ oto brigade poly euh, brigade d'intervention polyvalente bib bi euh, yegg si na léegi léegi voilà donc il y a voilà daf mel voilà voilà voilà naa jëlal ma li qu'est-ce qui se waa bib la ndax dañuy yóbbu Bart wala duñ ko yóbbu ñu yéeg nii voilà donc altercation am na altercation am na altercation am na altercation am na ndax Bart dañ koy Bart génn na Bart génn na Barthélemy génn na habillé en blanc ak doomam wala doom ji moom moo génn noonu euh, euh, voilà donc c'est des moments euh, forts que qu'est-ce qui se passe Barthélemy qu'est-ce qui ne va pas lan moo nar a xew actuellement ni lan moo nar a xew Barthélemy mi ngi échanger avec la BIP la brigade d'intervention polyvalente ndax dañ ko nar a yóbbu. ndax dañ ko nar a yóbbu lan moo xew voilà Barthélemy ñu ngi koy yóbbu seet naa jëlal ma image yooyu noonu qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas Barth est en train euh, voilà ñu ngi koy malmené ndax dañ koy yóbbu wala brigade d'intervention polyvalente bi voilà ndax dañ koy yóbbu voilà ndax dañ koy yóbbu taxawal ni seet voilà ndax dañ koy yóbbu voilà taxaw na voilà donc oto bi taxaw na qu'est-ce va pas oto bi taxaw na wala quest va pas lan moo xew actuellement nii li nu gis voilà non madame voilà voilà lan moo xew lan moo xew donc gars yi ñu ngi chargé waat donc oto Barthélemy bi mu nekkoon mi ngi avancé euh, ak oto doom ji nga xamante ni moom moo nekkoon ci ginnaaw oh, il y des échanges de tir mi ngi am voilà donc. nu avancer nu avancer xool quelle sera la suite quelle sera la suite quelle sera la suite donc nu ngi avancer di topp convoi bi nu ngi avancer di topp convoi bi voilà donc gars yi ñu ngi sànni xeer gars yi ñu ngi sànni xeer quelle sera la suite voilà donc ñu ngi gis brigade d'intervention polyvalente muy bib bi voilà ñoom la ñu gis nii euh, ñu ngi leen di topp vraiment. Euh, voilà donc tir de lacrymogène yi tàmbali nañ voilà gaa yaa ngi topp oto Barthélemy bi gaa yaa ngi topp oto Barthélemy bi ñu ngi nii à côté ci benn. Euh, euh, voilà donc la brigade d'intervention polyvalente ñoom ñoo ñëw def intervention léegi léegi wàcc seeni oto voilà bib mi ngi avancé waa bib ñu ngi avancé waa bib ñu ngi avancé. waa bib mu ngi avancé voilà ñu continuer ba xam nan la mbir yi nar a demee voilà kon gars yi waa bib waa bib waa bib song nañ Sonko wàcc na Ousmane Sonko wàcc na Ousmane Sonko wàcc na Ousmane Sonko wàcc na Ousmane Sonko wàcc na mu ngi jàppanteeg bib bi Barthélémy Dias est descendu Voilà. Barthélémy Diaz est en train d'échanger avec euh, les éléments de la BIP. Euh, L'Allemagne est Donc Barth est énervé, il fonce. Mais il avance 5 ans. Voilà. Voilà. Li xawna doy war. Doy na war Barthélémy deluat na ci otom. Barthélémy deluat na otom. Nous assistons à des moments euh, très très tendus entre donc les éléments de la BIP ak Barthélémy Diaz Ousmane Sonko gis nañ ko wàcc na ci oto bi altercation baa ngi continuer ils son énervés ils sont très